الأقوال والآفات وتخلي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبالغنا بها خير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات jërëjëf Sëriñ Tuubaa jaaraama Cheikh Ibrahima Fall Mbacke mu ne bismillah min seytaane kon mbokk yu baax yi di teew ñu tàmbali waxtaan wi xamal leen ne rek ne maam Lam Fall ca kanam Euh, premier lancement bi amoon na ci ñaar fukki fan ci weeru koor ci euh, mbaarum Fallène ci direction toute la famille euh, de Cheikh Ibrahima Fall et comme président d'honneur Serigne Cheikh Fall Ndigal et le général des Baye également était présent. Je me présente comme le chargé des relations avec public et de la diaspora. donc euh, premier lancement bi defoon nañu ko ca mbaar ma deuxième lancement bi ñu ngi ko defoon Masalikal Jinaan lii mooy ñetteel bi ñuy def sous forme de partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises avec tous les corps de métier les ouvriers en général et tous les corps de métier nekk Touba ak nekk ci bitim réew puisque aussi nous avons partenaires yoo xam ne ñu ngi ci bitim réew que nous avons déjà trouvé il reste maintenant le la parole euh, à Serigne qui est le président des électriciens va donner son son son son avis su paree sëñ Assane Ndiaye mi nga xam ne se l'initiateur vraiment du projet dana wax bu paree man ñi sama bopp ma dellusiwaat wax ko ci français puisque xam nga y a une version française qui est à travers euh, tout le tout le tout le monde. bisimilah kon sëñ euh, sans tarder sëñ Pape Ndour le président des électriciens de Touba moom aussi di membre ci euh, membre vraiment membre très remarqué dans projet. ñu jox ko mu mu tàbbal ci quelque kàddu ñu soog a jox Assane Ndiaye l'initiateur di projet vraiment su paree man aussi ma ñëw jàlle ci français comme day dem ci monde entier bismillah sëñ Fam asalaamaaleykum ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam di leen nuyu itam ci turu sëñ Assane Ndiaye mi nga xam ne moom moo woote fii ci fédération Maam Lam Fall ca kanam bi nga xam ne moom la taxawal muy loo xam nag ni li mu ñu ci woowee mooy dafa ne dafa bëgg daal corps de métier yi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi ñu àndandoo booloo liggéey liggéey liggéeyal Serigne Touba liggéeyal maam Cheikh Fall lépp nag ñu jaar ko ci ni maam Cheikh Fall nekke woon doon ko liggéey loolu mooy initiative bi ñun nag yàlla dafa dogal ñuy yëngu ci secteur électricité bi ak froid bi ñu doon ay association yoo xam ne mbooloo yu bari ñoo ne suñu ginnaaw ñu ànd di liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi bu ñu nee liggéeyal sëriñ Tuubaa nag sa jëmmi bopp moo cee jiitu ndax kon ay jullit lañu di ay jaam yàlla di ay taalibe sëriñ Tuubaa liggéey war ni liggéey bi ñu war itam di liggéey doon jaamu yàlla kon bu ñu la dee woo ci liggéey te dina ko woye fii ci Tuubaa dama jàpp ni war na la mën a jaral ndax ñun ginnaaw amuñu loolu sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa mi ñu am moom lañu yaakaar tey yaakaar ko ëllëg li nga xam ne mooy suñu teraanga tey aju ci liggéey bu de woo ci loo xam ne àndandoo ngir Serigne Touba ci dëkk bi ak maam Cheikh Fall war nañ cee sawar te kenn ku ci ne boo ñëwee xam ne sa bopp ngay ñëwal woowuñu kenn ci lenn loo xam ne dañu lay woo jëmale la ca lu lu ñuy jariñoo lu lay jariñ te dañ la woo jëmale la ca ndax sa doole lañ lay laaj ci loo xam ne boo ko jëfee la cee sa àq da nga ciy jot loolu bokk na ci li xamooy xam bi projet bi ñoom ñoo xam fañ ko tëral waaye partenaires yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal pour liggéey bi dañuy ñoo xam ni benn dañu yor seen i entreprise di soxla ay liggéey ak ñu leen di liggéeyal nañu war a a dem bitim réew wuti ay liggéeykat wala ñu dem ci dugg ci réew mi seet ñu leen liggéeyal ñu am yéen i waa Touba ci seen bopp ñu mën a gérer seen bopp seeni liggéey ak liggéey waa Touba loolu tax ñu am yéene ñi nga xam ne am nañu ay métier ci wàllu artisanat kenn ku ci ne secteur ba nga ne boo ñëwee ca foofa la ñuy am euh, action di jëflante ak yow ca noona ñeneen ñi nga xam ne tamit ay ndaw lañu comme ni ñu koy faral di waxee te kenn ku ci ne am nga ci rak mbaa nga am ci doom wala nga am ci jarbaat mu war a toll ci jàng métier na nga xalaatoon teg ko ci loxo yu tubaab bi mu dem seet moom lu muy def ci moom yow nga fexe ba ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci jàngale moom Cheikh ñu jaarale ko ci ba ni nga xam ne nga ko bëggee mu meloo ko ëllëg mu amee ko fii ci Touba loolu loolu mooy seen yéene dafay mel nag ni bisu tey bi ñoom dañu ne de lancement la waaye du loo xam ne dañ koy door tey ndax mel na ni asan mii nga xam ne mooy jëwriñ bi ba mu ci dalee yëngu yàgg na mën nañ ko wax ay at a ngi nii mu di ko taxawal ñëpp xam ko yi muy taaliwal sëñ Cheikh ndigal am ci ndigalul kilifaam bi sëñ Cheikh ndigal mu kenn dul laaj euh, werante laajte ak sëñ Cheikh Jëmu Fall bi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall te mel na ñoom duñ def loo xam ne dëppawuñ ci ak sëñ Cheikh Sidou Matar mii fi nekk sëñ Touba ne yàlla mu yàgg fa loolu te wér kon ñun bu ñu fi teewee ngir solidarité boobu moo ñu fi tax teew waaye doppeewuñu fi ngir leen loo xam ne dañu ci aw woote muy kumpa ci ñun dafa dem ba leer ci ñun ñu xam ne lu nuy liggéey képp koo xam ne jëm nga jëm ci lu koy dooleel euh, loo ñuy woo dañ seet lañ ca man def ko ca loolu moo waral ñun ñu teew ak mbooloo mi nga xam ne yàlla dogal ñu nekk seen ginnaaw ñu fas yéene tamit lu ñu ñëwoo te yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa tax ci dëkk bi ñu ànd ci loolu moo waral ñu ñëw ñu jox ñu kàddu ñu bëgg ànd ak ñoom liggéey bi amul ci lenn loo xam ne ay conditions yee lu ñuy teg ñoom ñooy seet seeni proposition lu ñu proposé rek te mu dëppoog li ñuy dox dañ ci leen ci fekk si ndax sëñ Abdou Xaadir yàlla yàlla doon leeram te taas ñu barkeem dafa dafa digle woon ne nañu liggéey te nañ jaamu yàlla te sax ci liggéey waxit ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk di wàllu waa adduna bi lépp lu ñu leen woo ci seen lislaam nangu ko ngeen fekk leen ci loolu ndigal sëñ Abdou Xaadir la woon ñu amit lu ñu wax ci sëñ Abdou Xaadir muy lu ñuy nettali te ñu war koo mën a jàpp ndax dañoo wax ne daa wax ne dafa toog ba mu mu ne xam naa de war nañoo sant yàlla bu baax ñu ne waaw bu ñu xamee sabab bi mu ne waaw ndax bu dafa xam ne bu nu yàlla bindee jigal nu nu jaamu ko mu dimbalee nu lu koy jaamoo fi moom xam ne war nañ koo sant te boobu fii ci Tuubaa ko tax di wax mu dellu waxaat moom Sëriñ Abdou Khadre ñu ne wax na ne loolu tubaab di def boo bëggee xool fu sori di ko jëfandikoo ñu ne ko ab longri mu ne waaw mu ne am naa de ku ko amoon ba ba dëpp ko ci asamaan si tiim Touba ba gis xéewali tiim dëkk bi doo néeg a gën dem Mbàkke Bawol ngir bañ mu rot sa ginnaaw kon Touba lépp lu ñu fiy woote jàpp naa ne bu ñu ci wuysee danañ ko mën a doxale noo xam ne lu ñu fi bëgg danañ ko am te duñ ci jotee kenn koo xam ne dañ naa jotewul Touba dara ndax Touba moom dafa am autosuffisance boppam ndax sëriñ bi mooy tey booy ëllëg te ba mu wootee itam Touba li abdin muridin saadihin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati loolu dafa jeexal lépp murid bi gëm mu wóor ko ni gëm na mu jaral ko ñu woole ca liggéey nga liggéey boobu ñu la woo wax nañ ni sëriñ Touba wax na ne loolu ngeen di jéem te mu tëtt ci muy l'islam defal nag seen borom ni mu ko bëggee ba fay ma ba fayal mu gën lislaam loolu moom kenn wérantuwul loolu ndax euh, penku baa ngi fi jógu fi kaamil baa ngi fi waxtu yu juróom te kenn defu fi lu toll ak fi def kon loolu bu ko way xel na koy nangu kon liggéey bi nga xam ne moom lañu topp Sëriñ Tuubaa maam Cheikh Rafal taxawaay bi mu ci taxaw itam wér na wér goo xam ne gërëm na ko ngërëm loo xam ne amul kenn du ko am ngërëm lu toll noonu looloo ko may cëru maam Lamp Fall mii tey ba tax na moom itam Sëriñ Tuubaa wax ne nga liggéeyal ko senn saa moom Sëriñ Tuubaa moo gënal yàlla nga jaamu ko juróom-benn fukkat ak ñett te mboolem ñi ànd ak moom te nga xam ne am na ci ginnaaw aw turbaat cër la leen ko may liggéey leen ko may kon liggéey boobu ne kenn ku ci ne am nga ci kattan ngoo xam ne war nga ko mën a def te du aw këyit wooy wane doo ko man waaye xam-xam bu la yàlla sedd la ndax artisanat moom ba ci jaaykatu gerte caaf sax ci la kon bu ñu wootee ci loolu yaatu na xañ na bunt bi ñu koy jaarale xat na sew na waaye mbir mu ne noonu lay demee li tubaab naan tout début est difficile bu ne dafa am jafe waaye boo ko gëmee rek yàlla mën la cee diggante nga jële ci njariñ di ci jaruñu di jariñe kon bu ñu wootee bu kenn nit teewee sax dana fa jële loo xam ne bu ci jógee man na see jariñ ñëpp ndax Sëriñ mi jariñ ñëpp te kenn du ne jariñ na ko le Sëriñ Blaad waxoon rek fa mu taxawoon di ñaan kuy wax amin nekku fa woon kon kenn ku ko jàppale ci dara amul mu wax nag ne moom Sëriñ Tuubaa bi mu àndee gaay yi yàlla yi dox ci yoonu yàlla ba dee ni leen kar dogale kenn ku ne danga nga ne man de bu ma ci nammee dee dëpp moom sëriñ bi mu man ne bu ma ko dee dee xañ du ma ko ñàkk kon loolu mooy woote bi ñuy woote ci liggéey boo xam ne dañ ci maam Cheikh rek tudd Sëriñ Tuubaa ndax ñoom duñu ñu kenn di mbubboo di leen tudd ci loo xam ne du dëgg mbaa du yoon ba pare ñu la cay bàyyi kon doole joo ca sàkku rek na la leer na ñu am na ci lu kawe njot lan nga ca sàkku yow kon loolu moo waral woote bi bu ñu wuysee nag ci ru loolu la ñu wuy si xañ na nag xat na te joxuñu ñu dara lu ñu war a wax lu suñu xalaati bopp rek la ñuy tëral kon loolu moo doon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum yéen mbokk jullit ñi yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen sant di leen gërëm seen teewaay bii ci liggéey bii nga xam ne képp koo xam ni teew nga ci teew nga ci liggéeyab Sëñ Tuubaa teew nga ci liggéeyab maam Cheikh Ibrahima Fall ndax maam làmp faal ca kanam dafa bëgg a yeesalaat njàngaleem maam Cheikh Ibrahima Fall ci ndawi Serigne Touba ba ndawi Serigne Touba yépp mën a jariñuwaat ci njàngaleem maam Cheikh Ibrahima Fall ndax war na ci guddi yi ñu toll ndax ñépp xam nañ ni fi Touba toll soxla nañ yeesal war may Tuuba yeesal war may Sëriñ Tuuba yeesal war may maam Cheikh Ibrahima Fall ñun waa fédération maam Lamp ca kanam ñu def ci am njàngat pour bëgg a leeralaat loolu ci kaw leeral gi nag dañ ci sakku na murit yépp ñaanal sëriñ Siidi Moxtaar Mbakke mu yàgg fi lool ca ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp ñu ngi sàkku ci murit yépp ñu sàkku ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb mu yàgg fi lool ca ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ñu ngi sakku murit yi ñu ñaanal Cheikh yi sëriñ Tuubaa yi ak taalibe Serigne Touba yi ñu yàgg fi lool ci wer ak njabootu Serigne Touba gépp di sant nag suñu sëriñ suñu yaakaar tey ak ëllëg borom ndigal Fall moo ñu may doole Fall ba ñu ñeme ndax lii lépp moom la Fall kon nag ñu jublu ci waxtaan wi fédération Maam Lamp Fall ca kanam objectif li ko tax a jóg yee salaat fii ci dëkkub Sëñ Tuubaa bi ndaw ñi ñu mën a am ci luñ jàpp yee salaat fii ci dëkkub Sëñ Tuubaa bi corps de métier yi liggéey boo xam ne génn na ci dëkk bi ñu jox ko liggéeykat yi fi nekk ñu liggéey ko mën a am lu yóbbu seen kër lii mooy programme objectif maam Lamp Fall ca kanam li ko tax a jóg yeesal njàngalem maam Cheikh Ibrahima Fall mu jëm ci formation formation nag boo ko déggee mooy jëf jël ànd liggéeyal Xaadimu Rasuul ci jaami yàlla yi yaakaar naa bu ñu tënkoo foofu mooy formation bi gën a wër boo xam ne bu ñu fexee bam dugg ci xel xale yi dana leen mën a jàllale fu sore sore sore sore ndax Cheikh Ibrahima Fall képp moo fi nekk ci am moo xam ne faat na toll soxla nañ ñun nag waa fédération Maam Lam Fall ñu def ci am njàngat tànn ay point pour bëgg ko waxtaane tey jii pour leeralaat bi si njëkk suñu objectif mi ngi nekk organisation maam làmp faal ci kanam université maam Cheikh Ibrahima fal chaîne de valeur 28 étoiles l'enseignement de maam Cheikh Ibrahima fal développement social yeesal unité islamique bennoo ngir Sëñ Tuubaa yeesal maam làmp faal ca kanam yeesal jàppoo jëf jël Touba Mbakke Touba Fall loolu mooy objectif Maam Lamp Fall ci kanam l'objectif du projet plan d'action deux millions talibés Serigne Touba adhérés dans projet dans l'avenir participer sur le développement social maam Cheikh Ibrahima Fall participer ci liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu jëm ca kanam a kanam a kanam l'objectif du projet plan d'action commission consultant 6666 organisation daaray soppey université maam Cheikh Ibrahima Fall développement social dans la l'avenir liggéey jaamu yàlla jàppalante ak dimbalante ngir sëñ Touba ndax bu ñu fexee ba am 6666 organisation daayira sëriñ Touba bu ñu bennoo di xàccandoo di dóorandoo luñ jéemal sëñ Touba dañ ko man wante bu ñu beroo kenn ku nekk nekk fenn loolu daf ñuy néewal doole sëriñ Touba soxlawu ko fii ci dëkkam bi kon nañ del siwaat ci njàngaleem sëriñ Touba mooy bennoo moo dox initiative maam Lamp Fall ca kanam jël si programme boo xam ne pour bëgg a leeralaat ndoonul suñ Touba li ba murit yépp mën cee jariñuwaat plan d'action commission consultant 313 bonne volonté corps de métier partenariat gagnant-gagnant dans l'avenir. Travaille avec vous par prestation de service loolu boo ko déggee ci wolof dañoo bëgg corps de métier Serigne Touba yi ci dëkk bi maam Lamp Fall signé ak ñoom benn partenariat yaa bi li ko waral mooy jàppal ma jàpp ndax Cheikh Ibra ab liggéeykat la woon. du ab lijjantikat kon fédération Maam Lamp Fall bu taxawee ni dafay liggéeyal Cheikh Ibra premier objectif am ci liggéey lay woote liggéey bi nag ñu bëgg koo defee defin woo xam ne nii dina nuroog naka maam Cheikh Ibrahima Fall bëggee woon ndax Cheikh Ibrahima Fall kat ba gisee Sëñ Tuubaa da koo gis ba pare jël xeewalam ya tàllal ko ba ñépp man cee jariñu ñun nag waa fédération Maam Lamp Fall ca kanam ñu bëgg a roy Cheikh Ibra ca loolu xeewali yooyu ñu bëgg koo leeral nan la ci yoonu murit di jariñoo ñu tànnoon ay point pour bëgg a lancer partenaire yaa gagnant gagnant bi dañuy xool ni ouvrier yi nekk ci dëkk bi jot na tey ñu doon benn surtout secteur artisanal bi nan la ñuy doone benn maam Lam Fall jëloon ci ay point xanaa ñu fexe ba ñuy adhéré ci fédération maam Lamp Fall 2 millions taalibe yi ku am looy liggéeylooti nga liggéeyloo ko maam Lamp Fall maam Lamp Fall xool liggéeykat Serigne Touba yi nekk ci dëkk bi ñu jox leen ko ñu liggéey ko lii mooy suñu objectif fédération maam Lamp ci kanam bu ñu paree. ñoom lañu moom ñu jël ko fédération Maam Lamp Fall ca kanam la moom mu jël ko loo ñu jël nag ñun doywuñ ko lenn xanaa liggéey bii ñu bëgg a liggéeyal Cheikh Ibrahima ñu mën a am ay xéewal yu koy defale ndax seetlu nañ ni doomu aadama laaj ci ñoom dara yombut kon jot na ñu taxawal liggéey yoo xam ne lañ cay amee danañu permettre luñ bëgg def ëllëg ñu def ko te duñ dépendre si kenn loolu moo waral partenariat gagnant gañaa bi avec entreprise sëriñ Touba yi nekk ci dëkk bi ak corps de métier Serigne Touba yi nekk ci dëkk bi ak liggéeykat yi yi nekk ci dëkk bi ñuy sàkku tamit kilifa yi ku am liggéey booy liggéeylu nga jox ko fédération Maam Lamp Fall ci kanam mu liggéey ko ba mel na war a mel jox ko liggéeykat yi Serigne yi ëllëg ñu mën a am lu ñu yóbbu seen i kër lii benn point la boo xam ne bëgg nañ. kilifay sëriñ Tuubaa yi ci loolu ñaareelu point bi service administration bi liggéey yi liggéey lu ci dëkk bi gis nañu lu ci ëpp ay jàmbur ñoo koy jariñoo kon jot na tey organisation Maam Lamp Fall ci kanam fexe liggéey bu génnati ci dëkk bi ñu fexe doomi dëkk bi ñu fi nekk di ko liggéey ñu koy jariñoo ndax ëllëg mu nekk njariñ loo xam ne njariñu Sëñ Tuubaa lay doon ak njariñul maam Cheikh Ibrahima Fall quatrième poin bi ñu ni bëgg nañ commission consultant chaque région ñu tra ñu liggéey ak ñaar fukki liggéeykat ak juróom-ñett ci région Sénégal yi bu nekk ñoom tamit nan la liggéeyeek liggéey ak ñoom partenariat gagnant-gagnant loolu boo ko déggee mooy bu ñu amee liggéey jox la nga liggéey boo paree la nga moom nga jël ko bu paree fédération Maam Lamp Fall lam moom mu jël ko loolu da koy permettre ëllëg lu mu bëgg a def def ko te du dépendre ci kenn loolu mooy partenariat gagnant-gagnant bi ci yeneen régions yi. commission consultant bi nag moo ci gën a am solo ndax gis nañ ni Maam Lamp Fall objectif am bëgg na juróomi at yu nekk. mu forme juróom-ñaar téeméeri ndawi Serigne Touba ci lan la leen di formé lépp lu jëm ci wàllum mbay lépp lu jëm ci wàllum sàmm lépp lu jëm ci wàllum commerce lépp lu jëm ci wàllum métier artisanal lépp lu jëm ci wàllum informatique lépp lu jëm ci xarale yi gën a xarañee ci àdduna bi ba léegi mu nekk ndamul Serigne Touba. ndax fi àdduna bi toll gis nañu ndawi Sëñ Tuubaa yi am nañ problème mu manque de formation professionnelle kon nag fédération Maam Lamp Fall ci kanam mu def ci ay njàngat xam ne am réew kenn mënu koo def te ndaw ñi amuñu xam-xam am réew kenn mënu koo jagal ci ndaw ñi amuñu xam-xam moo tax nag ñu jóg pour former waat ndawi Sëñ Tuubaa yi ci xam-xam yi gën a xarañ ci àdduna bi pour ëllëg ñu nekk ay représentant Sëriñ Tuubaa ci àdduna bi loolu mooy objectif maam Lamp Fall ci kanam formé bi nag niñ ko bëgg a defee dañ ni kër Serigne Touba gu nekk danañ la jëlal fukki ndaw formé leen formé bi niñ ko bëgg a defee dañ ni représentant cellule yi représentant cellule bu nekk danañ la jëlal juróomi ndaw formé la ñu jàppale la ci liggéey bi nga xam ni moom lañ la jox pour nga mën koo def nam waree suñu objectif ba tey corps de métier yi ñoom ñooy nekk formateurs yi ndax liggéey bu toll nii ci dëkk suñ Tuubaa yi te do ci njabootu suñ Tuubaa gi man ko ñu doon corps de métier yoo xam ne xareñ xarañ bokk nañ ci corps de métier yi gën a xareñ ci àdduna bi njabootu Serigne Touba gi ñu jox leen ndawi Serigne Touba yi ñu formé leen chef d'entreprise bu nekk. wala chef de main bu nekk ñu yëkkati ñaari xale wala benn xale jox la ko nga formé ko ñetti weer yu nekk ñu déplacé wu xool ñoom la ñuy def woote benn séminaire bu mag sur partenariat gañaa gañaa bi loolu tamit bokk na ci objectif yi dans l'avenir ndax dañu soxla moyens yu bare bare bare bare bare bare pour liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh ci jaami yàlla yi mooy yooyu nag ay wax du ko mayee liggéey moo koy mayee moo tax ñu bëgg ànd ak corps de métier sëriñ Tuubaa yi fexe liggéey yu ñu am jox leen ñu liggéey la nga xam ne ñoo ko moom ñu yóbbu seen kër fédération Maam Lam Fall la moom mu jël yóbbu këram loolu mooy objectif bi bëgg nañ tabax benn centre formation polyvalent deux hectares boo xam ne li ko tax a jóg ouvrier Serigne Touba yi ñu dajale leen fa dugal leen fa ëllëg kuy soxlaate ouvrier Serigne Touba boo ñëwee ci base bi fekk leen fa sant leen ñu liggéeyal la li nga bëgg loolu mooy objectif bu deux hectares yi bëgg nañ. benn zone industrielle maam Cheikh Ibrahima Fall deux hectares moom tamit liggéeykat yi Serigne Touba yi ñu basé leen fa képp ko am looy liggéey looti ci côté zone industrielle boo ñëwee dee fekk fa liggéeykat Serigne Touba yi ñu mën laa liggéeyal li nga bëgg ak na nga ko bëgg loolu mooy suñu objectif troisième point bi bëgg nañ benn centre commercial maam Cheikh Ibrahima Fall pour liggéeykat bi bu liggéey de ba pare teg ko ci sant commercial bi man koo jaay ëllëg mu amal ko njariñ lii tamit bokk na suñuy programme ci projet Maam Lamp Fall ci kanam quatrième point bi bëgg nañ ay ferme agricole yoo xam ni 4 hectares la lépp lu ñu bëgg ci wàllu mbay ñu jël looje ko fa ëllëg former ci ndawi Serigne Touba yi pour ñu doon ay référence yu baax loolu tamit suñu objectif la bokk cinquième point bi bëgg nañ ferme élevage boo xam ni bëgg nañ ko fii ci dëkk suñ Bamba bi pour ndawi Serigne Touba yi ñu former leen fi pour demee ñu nekk ay référence yu baax li leen bokk na suñuy programme l'objectif du projet plan d'action action sociale maam Cheikh Ibrahima Fall participer dans la l'avenir cent mille jeunes formation professionnelle casés et préparés pour demain après les formations préparer vingt-huit entreprise Serigne Touba yoo xam ni yoonu Serigne Touba bi képp moo koy tax a jóg loolu mooy suñu bëgg-bëgg mooy suñu objectif ndax loolu bu ñu ko xasee am bu ñu tënkoo ci njàngale mam maam Cheikh Ibrahima Fall ëllëg lu ñu bëgg dañ ko amal suñu bopp lu ñu soxlaat dañ ko defal suñu bopp te dootuñu dépendre ci kenn ku dul ci waa kër Serigne yi ndax fi àdduna toll yoon wi ñu Serigne Touba tënkaloon bu ñu ci tënkoo lu ñu bëgg war nañ ko mën a am te duñ ko jéggaani ndax lépp Sëriñ Tuubaa waajal na ko ndax kat bu njëkk Sëriñ Tuubaa daa amoon secteur artisanal ci biir këram bu njëkk Sëriñ Tuubaa daa amoon ay baykat ci biir këram bu njëkk Sëriñ Tuubaa daa amoon ay sàmmkat ci biir këram bu njëkk Sëriñ Tuubaa dafa amoon ay commerçant ci biir këram loolu lépp lim si jublu woon pour ëllëg lu a def def ko te du dépendre ci kenn ñu jël initiative Serigne Touba yooyu ñu ne maa kër maam Lampal ci kanam nañ ko yeesalaat ba njabootu Serigne Touba gi mën a jariñuwaat ci njàngaleem maam Cheikh Ibrahima Fall ndax àdduna bépp bu ñu tënkoo Cheikh Ibrahima danañ raw fii danañ raw ëllëg loolu mooy suñu yéene lañ waxoon ne nañ ko jàllale jërë ngeen jëf Baye Fall yi ñu ngi ñaanal nag murit yépp fu waay mën a nekk la nga bëgg yaa xam ñi ngi ñaan ci doole Serigne Touba Serigne Touba defal la ko ñi ngi ñaan kuréeli Serigne Touba yi ak daayira Serigne Touba yi ak entreprise Serigne Touba yi ak entreprise unité islamique yi ñu bennoo ngir Serigne Touba bu ñu ko defee doon wenn sey lu ñu jéem tey danañ ko daan ak ëllëg lii mooy suñu yéene mooy suñu bëgg-bëgg jërë ngeen jëf gaa yu baax yi en tant que chargé de des relations publiques au niveau du projet, Ousmane Gaye, je m'appelle. Je voulais tout simplement préciser que le démarrage de ce projet a été lancé euh, le 20 jour du mois de Ramadan qui coïncidait, qui coïncidait la rencontre avec Cheikh Ibrahim Fall et Serine Touba. Euh, été lancé à Palin. C'est une précision avant d'entrer de, dans le vif du sujet. Le, deuxième, lancement de ce projet a été fait à Mazalik El Euh, les 22 et 23 juillet passés. D'ailleurs, euh, prochainement, vous pouvez suivre tous ces éléments-là à la, à la, à la télévision Touba TV, etc. Maintenant, pour euh, ce que vient de dire Hassan, comme il l'a bien dit, nous avons, de, avec ce, ce projet d'une si, grande envergure, vous savez qu'avec des cotisations seulement, on ne pourrait, on ne pourrait pas s'en sortir. Cause pour laquelle... Euh, nous misons sur le partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises nationales et internationales. Moi-même qui vous parle, je suis à l'étranger depuis 15 ans. Tous ces partenaires que vous voyez dans les photos là et tous ces là on a ciblé de ça ces gens, ces gens-là pour demain travailler avec ces gens-là dans un partenariat gagnant-gagnant. Puisque vous le savez, comme vous le savez, du may kenn dara dañuy liggéey euh, gagnant-gagnant comme comme comme vous le Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, comme l'a bien dit Hassan, je voulais préciser que pour entrer dans ce, dans projet-là, dans cette entreprise de Mme Cheikh Fall, il faut acheter une carte de membre. Une carte de membre, comme je l'ai dit l'autre fois à Mazalik El Dinan, on ne peut pas baser quand même un, un projet de si, d'une si grande envergure sur des cotisations. Demain, les gens cotisent, demain, après-demain, ils ne cotiseront pas. nous, ce que nous misons et nous voulons créer une rupture par rapport à ce qui se passait avant. Ça, c'est clair, je l'ai dit l'autre jour là, et je le répète, ici. Euh, euh, euh, toujours est-il que y a, les cartes de membres sont là. Pour y adhérer, il faut acheter une carte de membre de 1075 chaque mois pendant 5 ans. Cette, cette, cette appartenance à, à, à l'entreprise vous permet demain qu'on puisse former votre fils qui est dans le DARA ou qui est en tout cas quelque part, sur lequel peut-être vous pouvez payer 500 000 pour une formation professionnelle. Et si tu, euh, es membre déjà pendant 5 ans, ce fils-là sera formé gratuitement dans les, dans de grandes envergure que nous avons euh, l'ambition de créer à l'avenir avec euh, bien sûr euh, l'appui de l'État et des partenaires extérieurs dont nous avons déjà euh, pris contact avec déjà une ressource tout simplement de leur présenter le projet et de, et de, et de bénéficier peut-être éventuellement de, de l'appui des autorités. Parce qu'un projet de cette envergure quand même ne pas se réaliser sans l'appui des autorités, cause pour laquelle nous, appelons un, appel, nous faisons un appel solennel sur ce micro-là, les, autorités, pour participer au développement vraiment de, la ville de Touba. Donc euh, voilà, organisation SOPEI Université 28 euh, étoiles l'enseignement de Mame Cheikh Ibrahima Fall fédération œuvre de bienfaisance euh, bon la bienfaisance c'est c'est c'est l'essentiel de ce projet là euh, vous savez que Mame Cheikh Ibrahima Fall il travaillait pour les autres tout ce qu'il faisait il le faisait il travaillait il amenait pour les autres et aujourd'hui on a modernisé et on a voulu que tout le monde travaille euh, travaille et son aide en poche et que puisse aussi euh, avoir quelque chose à amener chez sa famille donc euh, L'objectif du projet aussi, c'est le renforcement, le renforcement des capacités des jeunes et, le renforcement et la formation dans des métiers polyvalents de 15, des, des, jeunes de 15 à 45 ans. En les formant dans les métiers d'agriculture, d'élevage, de commerce en général, d'informatique et de bâtiments et de métiers artisanaux, etc., etc. Sur ces différents, ces différents cours de métiers qui sont, qui sont les, les métiers qui sont dans le, monde. L'objectif aussi, la création de centres de formation professionnelle, pour caser ces jeunes-là pour demain, après les avoir formés. Puisque dans, dans le projet aussi, eh, nous, avons, déjà des partenaires avec lesquels nous travaillons qui, qui, qui, sont spécialisés dans tous les domaines dont nous avons cité ici, qui vont former ces jeunes-là. Donc euh, dans le projet, nous avons tous ces, gens-là disponibles déjà et que nous, n'allons pas chercher. L'objectif encore du projet, c'est un centre commercial pour, euh, pour former les jeunes, par exemple les talibés qui sont sortis fraîchement des Dara et qui ont besoin d'être euh, réorientés, en tout cas euh, qui, vont travailler, qui auront quelque chose à faire. Parce que généralement les gens quand ils sortent des Dara, ils, ils n'ont même pas, euh, ils ne savent même pas à quel se vouer, etc. etc. C'est pour tout cela que nous allons créer des jeunes de référence et qui sont qualifiés dans ces différents euh, corps de métier que nous. C'est pourquoi nous lançons un appel maintenant à toute volonté, volonté du monde pour l'unité islamique, l'unité du mouridisme, l'unité sénégalaise, l'unité africaine, liggéey liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi ngir Serigne Touba je vous remercie de votre euh, euh, aimable attention voilà. sant yàlla di julli Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba. di gërëm Assane mi ñu woo fii ci projet bi mu. bi muy tëral nii ñu bëgg ko ànd ak moom xam naa ne Assane bu yàgg xamuñu ko ci ay caaxaan xamuñu ko ci ay falaa falaa buñ ko xaman ci ay caaxaan wala ñu xam ko ci ay falaa falaa duñ jaral jóg parce que ñun duñ dugg ci ay caaxaan mais gis Assane yoon wi mu biñ ko xamee ba léegi yoon wi mu jaar yoonu dëgg rek la jaar xaj na nag àdduna moom noonu la mën a demee ci ay noonu lay doxee mais li nga doxee ni mu doon doxee ban xam ko ci moom loolu rek lan lan lan gis ci moom mosuñoo gis changement ci moom moo tax ñu ànd ak moom ci projet bi moo tax it ñu jóg ñëw fii pour jàppale ko ci projet bi jàppale suñu bopp ñu ngi ñaan suñu borom yàlla doxal projet bi ba doxal ko nu kawe njortam daal barke Sëñ Tuubaa merci. kii doonoon wax léegi moo nekk représentant lépp lu jëm ci wàllu pièce détachée moom lañ jox parti boobu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh man El Hadj Cheikh Ahmadou Bassir di Ousin secrétaire général de l' association des frigos de Touba initiative bi rafet na trop ca kaw ca kanam rek jàpp ci bañ a bàyyi barke sëñ Touba barke maam Serigne Fall Babou Mouridine merci bien. amiin kooku tamit suñu partenaire la lépp lu jëm ci wàllu froid lay def loolu mooy activité am. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala kaddu gi jëloon nañ ko léegi dafa dellu siwaat ñu sant rek ci taxawaay bi ak doxalin wi bëggoon a joxwaal beneen message boo xam ne dafa jëm ci carte de membre yi ñuy wax ndax ñun ouvrier la ñu féeteeg ouvrier waaye nag dañu boole ci conseil yi mel ni dañuy bokk ci projet bi ci ci ci fédération bi euh, léegi nag ci wàllu euh, carte de membre yi dañu ne 1075 la ñu koy jaayee par weer ba mu mat juróomi at lañ ko xayma loolu jàpp naa ne wut a jafe kenn moom li nga xam ne nag ci lañ jëmale 1075 itam dañ boo jëndee sa carte de membre di nga ko ci gis maam Lamfal ca kanam ñu def œuvre de bienfaisance tuddee ko barkeelu développement social solidarité contre la pauvreté loolu lépp yaakaar naa ni jullit bu ne loolu war naa doon ab liggéeyam nga xam ne jaamu yàlla yi dara gënu ko cee kawe loo xam da nga koy def muy lu baax nga jëmale ko ci jaami yàlla yi ngir lu leen di jariñ ndax loolu loo defal jaam yi ñu jariñ leen rek yow laa jariñ ma nga ci biir loolee kon loolu moom mooy li tax nga mën cee bokk bokkin woo xam ne day tax nga nga jàppale eh, Lamfal ca kanam ak li nga xam ne mooy projet yi ñu bëgg a doxal lu la ci dugal ak lu ci dugal ñëpp ba lépp mën a jëm ca kanam kon daal loolu mooy li ñu doon dolliwaat ci li ñu jëloon kàddu léegi wasalaam. jaajëf kooku mooy njiitul président lépp lu jëm ci wàllu froid fii ci Touba Mbakke ak président électricien Serigne Touba yi fii ci Touba. liggéey bii nag représentant la ci conseil la ci lépp la ci. man maa ngi tudd Alaaji sekk ne ñëpp na seen Assane Ndiaye yàlla na yàlla guddal fan ne ko ñépp wax man bi ma xamante moom yàggul si juróomi fan la Ndakaar laa dëkk dafa ma fekk sama kër benn tànta mu ñëw di joxe carte ma di ko tooñ ne ko ñun tijaani xanaa bokkuñu ca carte ci carte yi mu ne ma ahankay ñuy waxtaan ba mu woon ma lii. li mu bëgg wax daal mooy mënal sa bopp mooy soto développé maanaam nga dimbali sa bopp loolu la bëgg tënk te li ma ko njëkk wax kare bi mu ñëwee dama ne ko fexeel ba attaqué dem ci mbay mi suuf si parce que tubaab yi chinois yi actuellement suuf la ñuy bañ a gis yi toll ba Chine cliquer ci ordinateur bi xam ni Afrique Sénégal am na suuf bu ñëwee duñ la seet si de palais la ñu jëm pale préfet président communauté ñu jox leen suuf si fexe lan ba dugg ci mbay mi l'agriculture ak élevage mooy loolu loolu mooy lépp parce que suuf amatul fen suuf amatul fenn fexe lan ba li ngeen am suuf ak kas néew ngeen attaqué ko jëmbat ci benn xooxu mango boo ko jëmbatee bu màngo bi ñoree mën nga cee lekk di ci jaay loolu laa ko bëgg a wax te léegi li mu bëgg a wax tamit mooy. formation des enfants c'est très important ndaw ñi dañ leen jàngal ak jigéen ñi nit ñi nañ jàng jàng si dafa baax jàng nen jigéen ñi jàng xale yi jàng parce que boo jàngul doo xam dara wasalaamaaleykum. alhamdulilah euh, bisimilah ah ñoo ngi siyaare ñëpp ah Assane moom du suñu xarit du suñu waay lu yàggul lool affaire bi mu ko taxawal te ñun waxtaan ci ñun vraiment ñu jox suñu xalaat. wax nañu bis bi tam ñëw nañ teewal ko ñu ngi koy ñaan daal suñu borom jàppale ko ba fi mu bëgg mu àgg mu àgg fa asalaamaaleykum. kooku suñu partenaire la commerçant mu ngi tudd suñu mag ju baax du suñu mbokk tamit ñoo ndax mook suma yaay ay mbokk lañ Habibou Cissé lépp lu jëm ci wàllu quincaillerie yi partenaire la ci projet bi a ngeen jëf. asalaamaaleykum. salaamaaleykum barki borom Tuubaa maa ngi leen di ziar yéen sama papa yi fi yi ma fi fekk si ak sama sama grand frère yi ak sama rakk xam naa ne dama ciy dolli rek waaye li ngeen li ngeen li li ñu waroon wax yëpp wax ngeen ko seulement que daa am tuuti lu ma ciy dugal rek que ne euh, ñetti nit yu ànd moo gën euh, mbooloo mu àndul waaw ñetti nit ñu ànd moo gën mbooloo mu àndul. li may li may ñaan kay mooy ñu gën cee jàpp rek parce que lii xam naa ne luy jëmee luy jëmee Touba ca kanam la ndax ñun lu ñun ndawi ndawi Touba ku ñuy woo ci liggéeyal borom Touba ak luy luy luy dimbali nit ñi den ci ànd ak yow wax dëgg yàlla. Assane njaay sama grand bu baax la wax dëgg yàlla dafa may fekk sama place di ma ci encouragé en plus ma ko ci encouragé waaw moom daal wax dëgg yàlla kontaan naa te maa ngi sa ginnaaw waaw lu mënti xewit maa ngi sa ginnaaw quoi waaw loolu rek laa amoon lu ma ci lu ma ciy sànni wasalaam. jërëjëf Assane. moom suñu rakk la boo xam ne ñoo ko dugal ci projet bi ci chargé des relations yi moo suma benn rakk bi nga xam ne moom lañ bëgg a jox moom ci chargé de relations yi lañ bokk xale yu baax lañ yu yaru lañ yu nangoo liggéey yu am jom loolu laa leen xam moo tax mu wóolu leen ànd ak ñoom ci liggéey maam Cheikh Fall bi. auzu billah bismillahi rahmaani rahim euh, ñoo ngi euh, sant ñëpp euh, ci teewaay bi ndax woote yomb na waaye wuy si yaakaar naa xaw naa jafe ndax temps amut kon ñu xam ni ñun ay ndaw lañ donc buñ gisee loo xam ni dafay jëmmal kanam ci sun su fi nga xam ni gox mooy gox bi nu nekk yaakaar naa loola dañ caa war a mën a dox ndax ñun ñoo koy mujjee ëllëg man projet bi tout le temps damay wax ni du projet Assane Ndiaye du projet ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ñëpp projet bi projet ndawi Touba yi la ndax xëy na boo boo xawee génn tuuti wala nga euh, def yeneen séance yoo xam ni xëy na nga jànge feneen wala nga nekk ci yeneen xëy na di nga xam bu baax a baax a baax li ñuy wax ndax tey boo gisee ñu intégré ci ndaw ñi tey ñu bëgg cee dugg ci cadre ñi ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo yor kàddu xale yi mooy tey euh, mbir muy continuer lañ bëgg mu doon ko loo xam ne am suivi euh, ci kaw suivi googu day day day dëppoo ak norme yi waa Touba ndax ñun lépp loo xam ni dañ ciy eh, sentir liggéeyal ci Sëriñ Tuubaa rek yaakaar naa ni loola ku ñu ca woo dañ ciy sawar lool tey it ban ko déggee léegi mu fekk ñu Tuubaa di yëngu ci wàllum lu mel ni ay dimbalanteeg social ay association yi nga xam ni moom lañuy ñuy ci yenn gox ya goxaan yi boobu ba léegi fépp foo xam ni dañu ciy woo wala fépp foo xam ni dañ faa bëgg ngir mbir ma yàgg fa dañuy pare ngir dox ca loola xëy na autorité yu bari euh, dem nañ ci wax ak ñoom ñu rafetlu ko te it joxe ci seen contribution seeni xalaat euh, biñ ci joxee seeni xalaat préfet le sous-préfet de Ndam ak euh, préfet bu Mbacké yaakaar naa bañ cay dem ak yeneen structures yi nga xam ne ñoo nekk fii euh, bañ cay dem ñoom ñëpp dañ ko rafetlu mais peut-être euh, temps bi ak ñi nga ak ñoom it seen tolluwaay euh, ci dëkk bi yaakaar naa lu ci baree bari dafay xaw a des dañuy gis ni li ci ëpp mooy li nga xam ne dem na ba sori sori wala mbooloo ma bari ca lool loolu la ñuy kii waaye nag pas-pas moom yaakaar naa moom mooy yeggale loo mënti gis. Euh, mooy gëm-gëm bi ak pas-pas bi nga xam ni moom lañ ci war a mën a am man du def lu dul di leen remercier ci initiative bi ngeen am te it di wax ni euh, bu fekkee euh, comme li sama grand frère bi wax rek ñaar ñoo xam ne danoo ànd di dox moom yaakaar naa bu doonte bëriwul moo gën mbooloo moo xam ne yaakaar naa dañuy naxante kon ñun am nañ ci conviction te bu eh, gis nañ ci njariñ njariñ ëllëg eh, di ñaan yàlla rek fépp foo xam ni eh, dañoo bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo yegg fa yàlla defal ñu ay tawféex ban yegg ca ci doole Serigne Touba ñoo ngi leen di jërë jaajëfal bu baax a baax alhamdulilah. maa nuyu leen sant di leen gërëm. julli asalaamaaleykum wa rahmatulahi sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sama borom kër sant Serigne ñaanal seen Sidi Maxtaar Mbàkke mu yàgg fee wër seen Seex Jëmm Faal yàlla na fi yàgg ak rakkam liggéeyal Sëriñ Tuubaa Seera Faal moom ñu di ay murit moom ku ñu ci woo danañ caa war a wuyu sant nag yow mi ñu ci woo ñu lay wusi yàlla man a jàppale yàlla nu jàppale ba leen bëgg a liggéey Seera Faal Sëriñ Tuubaa yàlla jàppale ñu ci jërëjëf. asalaamaaleykum ñoo ngi leen sant di leen gërëm ñu ñaan yàlla li ñu sémb yàlla nañ ci yàlla ak maam Sëriñ Faal jàppale mu dëgër baax. barke sëñ Fallou Mbacké sant nañ la bu baax yow Assane ñu sant bu baax la auzu billaahi mina seytaani rajiim assalaamu allahumma salli ala seydina Muhammad jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi nuyu ñu fi toog ñëpp di sant di gërëm projet bii nag man xam nga lu ma gëm mooy fukk sax bu ñu àndee mànkoo booloo affaire bi dem yow nag Assane ñu ngi lay sant ba fi sant yem parce que boobu ba léegi tàyyiwoo sonno yaa ngi def sa doole yaa ngi def sa alali yaa ngi def sa temps yal na la yàlla jàppale yàlla may la ndam ci barke Cheikh Ibrahima Fall mi nga yaakaar liñ ci séntu yàlla nañ ko ci am nit ñi nag kenn mënu leen a woo dara convaincre leen waaw kenn mënu leen a woo bañ bañ ba ñu ñëw dara convaincre waaye yow mi daal li ma lay ñaan mooy jàppal rek ñun moom ñu ngi sa ginnaaw foo wootee daal bu ñu dara jotul bu soobee yàlla suñu borom danañ ñëw góorgóorlu ñu ngi sa ginnaaw wasalaam. salaamaaleykum ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne nii que ñoo fi teew tey ci bis bi waaw di leen wax ne que projet bi moom mm, liggéey moo ko tax a jóg jàppale murit yi jàppale néew ji doole yi comme ni mu koy waxee waaw ñu ngi leen di ñaan yoon ñëpp maanaam ngeen jàpp ci ñaanal ko projet bi mu jëm ci kanam dem ba mu mm, raw li nga xam ne moom la ko foogee woon ndax léegi lii moom comme lu baax la te ñun ñëpp lu baax moo ñu tax a jóg ñun ñëpp ñan ci jàpp rek mu jëm ca kanam barke maam Cheikh Rafal yàlla jëm ca kanam rek incha allah jërë ngeen jëf. salaamaaleykum yéen mbooloo mi fi nekk ñu ngi leen di sant di leen gërëm fa sant yam ndax wax dëgg yàlla liggéey bii bañ ko àndee ba tey ànd ngeen kook ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di sant nag delloo njukkal sëriñ tubaak ak maam Cheikh Ibrahima Fall jàppoo jëf jël ànd liggéeyal xaadim rasool ci jaami yàlla yi moo ñu war tey ak ëllëg ak bépp murit yaa ngeen jëf Baay Fall yi jërëjëfe maam Cheikh Ibrahima mam jërëjëfe maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëfe maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëfe Cheikh borom ndigal Fall suñu yaakaar tey ak ëllëg jërëjëfe Cheikh borom ndigal Fall suñu yaakaar tey ëllëg ñu ngi ñaanal suñu Sidi Moxtaar fi lool ci ñi ngi ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool ci wér ak jullit ñëpp si barke maam Cheikh Ibrahima Fall yaa ngeen jëf Baye